def leen ci borom Cheikh Sëñ Babacar Si waay ظلمت رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوسار والنقام وصلي يا إلهي موضوع ملك وقد تواصلت يا رحمن يا ثقتي يا مغني أنت في الأوسار والنقام لا إله إلا من هو محمد المختار لقد شكوا وقد تواصلت يا رحمن يا ثقتي يا مغني أنت في الأوسار والنقام وعيدك الموت مليك المختار موت مالك ربي بأسمائك الحسنى وأسمائك والأنبياء وأستاذ سلك نسمهم ملتحم يا إله mal muqafi bi saddin faye qad tabatu wa kasir a wasuko lil yabe kutubihim liyam ya illa الناس ما أنور التباح على الأروف إلى اليمن الكلمة يعني يا إله مدام والعاقب المقتفي آثار من سبق من الأنبياء لله كلهم موائب أسماء ñu bëgg ñii nga xam ne ñu ngi tudd seeni tur nga santal ñu leen ñaanal leen ndax képp kuy def bëgg nga ku la ne jërëjëf te lu ñu mën ak lu ñu mënul def nañ ko ci gàmm Alaaji Daam Jóob dafa def dem booy génn kër gi dellu siwaat ne ñu bu leen am benn jaaxle fu ngeen demee ba bëgg a rek na ngeen na woo laaj ma ma li ngeen bëgg foofu la yéene mën a toll ba ñu demee ba jaaxle bëgg ko laaj Abdou Ndoye agsi ne maire de la moo ko yónni Pape Sadio El Hadj Pape Sadio ñëw ba nga xam ne ba mu agsee alhamdulilah ñëpp sant kookan ñëw nag seen jant ñu xëjoo ci suñu gémm yi ci def mooy ki nga xam ne ni mu ko defee fii noonu la koy defee Tivaouane noonu la ko defee ci kër yëpp mu di euh, wax Demba euh, Diop si def nañ tarangam ci ndikku hélas moo du xullee topp na ko ca loola def lu toll ni li mu def hélas Ibrahima Dieng moom itam ak mu jot nii tey bi nag ñu ko santal gërëmal ñu Lees Mbacké ànd ah njabootu kër gi mais yéemu ca daf ko boole alalam ak lépp lu mu mën a lu mu mën lépp ci xew euh, El Hadj Mor Seck El Hadj mu Sëriñ Mansour saa yu ñëwee ci kër gi dafay daanu leer ah def na lam waxoon nañu ne def na kii di ñu ngi ko sant di ko gërëm nit ëppale na ko te li mu nangu di ko def def na ko mais pas-pasam nag moo koy am ma ba li mu jéem di ko mën yàlla yàlla yokk sutura eh, élargi jigéen boobu moom itam ñu def na lépp loo xam ne kii di commissaire central El Hadj Abdoulaye Diop na mu doon def noonu la def ak i élément mu di waa police ñëw nañu assurer sécurité mhm. heure ba ñu heure ba ñu ñëwee. booba presque tànt bi kenn ko defee loola ñu nga ko ci sant di ko ci gërëm ndax la yéene toll doom na ci kër gi taalibe la ci kër gi ah, alhamdulilah yëg nañu ko ñu ñuy àndal moom mu di maire bu Pikine Adja Tabara Ndiaye moom it ànd naag délégation ëmb ay teraangaam di gis sippiku ci kër gi madame Khadiba maire de euh, Diamaguène Sicap Mbao moom it ñëw na ak délégation lu mu mën la mu mënul boole na ko yéene sippiku ci kër gi Adja Rokhaya Tidiane Diouf doom la fii ci cité mu def bëggoon nañ nga teg ci sa bët ah ñu nekkoon nag réew mi ci ñun bu fu ñu mun a jaar dinañ ko déglu dinañ fexe bu sëriñ bi yëpp ñu bëgg nga ñaanal ko xalal la wante na pas-pasam àkk na ci pas-pasi mag ñi eh, le ministre de l'intérieur di kilifa bépp service boo xam ne mu ngi saytu ñoŋeelu euh, sutura képp ku mun a doon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla li fi war a teew ci wàllu sécurité mu di pompier sapeur pompier mu di police mu di euh, lépp loo xam ne liggéeyoon na ko mu di ay bâche ak lépp gàtt na ñu ngi ko sant di ko gërëm monsieur le préfet moom li ko sant mooy que teew nañu ci établissement recevoir na ñëpp waxtaan ak ñëpp jox leen yoon wa nga xam ne fa la jaar ba lu bare bare bare lu a jafe yomb ñu ñu ngi ko sant di ko gërëm nga santal Euh, service du chef nañu doon def def nañu ko ñëw nañ ci kër yi désinfecte kër bu nekk dugg nañ fa désinfecte def la ñu war a def ñu ngi leen sant ñoom itam nga santal leen seen waa croix rouge euh, Sénélec alhamdulilah ñoom itam ñetti fan yàlla ñu ngi fi lampe bu fi yàqu defar nañ la euh, wax dëgg yàlla dañoo xawoon nañoo tàgg sax ci demande courant bi wante nag yombalalal ñu ko ba alhamdulilah yëguñu sa dara li ñu commission santé bu district bu Pikine bi ñaar fan yu topp ba alhamdulilah képp ko fi euh, am jafe-jafe ci sa wér gu def nañ ca la ñu mën nga sant mu di tabure présidente groupe la fii moom itam def na teraangaam euh, nga sant nga boole ñu ko sant Jàmme moom itam responsable ANAS moom itam euh, alhamdulilah wax dëgg yàlla ñu koy sant di ko gërëm def na lu rëy te ku la lu rëy nga war euh, imaam ci gox bi chef de quartier ci gox bi coordination yi daayira rek ba ci fédération ba ñoom ñëpp ñu leen di sant teew nañu teewal loola nag la ngeen laajoon euh, Gorga Massi action daara ji euh, koskas depuis barki démb ba léegi ñu ngi def ñu seen kër bu guddee fii la ñuy fanaan loola nag ndigal la ñu topp te yaa ñu ko jox loola waral jataay bi mel ni nga sottanu leen ngërëmal ñu leen su ko euh, képp ku tàbbal sa dërëm mbaa sa doole mbaa aw ñàkk mbaa aw yéene ñu ngi lay sant di la gërëm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 بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد